nuyu leen bu baax mbokk internet yu digital xam ngeen ne su ngeen gisee fi nga xam ne fii la ñu nekk mu di marché bu euh, Petersen fi nga xamante ni dañuy ñëw waxtaan ak askan wi ci seen gis-gis ci li nga xam ne moo di kaddu yi Birame Souleye Diop ak kaddu yi nga xam ne sax ñenn ci amateur de lutte yi yëkkati nañ ko di ñaaw lu yooyu les kàddu wax ne daal du kaddu yu ñu war a yëkkati ci penc askan wi nag lu ci seen xalaat loolee la ñu ñëw fii ngir taataan ko ñu ànd ceeg euh, ñi nga xamante ni ñoo di euh, ñu jëlee file nga xamante ni ci euh, Petersen la damay bàyyi rek askan wi joxe seen xalaat ñu dellu si waat. waaw Birame Sërëm Birame Souleye président d' abord dam damay rafetlu sax président Ousmane Sonko li gagné ak président Diomaye ñoo ngi rafetlu si ñoom quoi di kontaan si ñoom. waaw Birame Souleye li mu wax loolu am na si droit am am na droit am kenn bu ko tuddee làmb ndax rëmm làmb làmb doxul réew quoi làmb maanaam dafay arrêté réew quoi avancé wu réew luy gën a tardé mooy làmb. làmb amul benn amul benn intérêt boo xam ne nit dañ ci gagné promoteur moo ci gagné rek ak mbër mi ak quelque seen ñin ñoo koy gagné làmb moom amul benn amul waaw man sama gis-gis quoi. mu ngoog mbër yi génn ñoom ñëpp di wax ku ci mel ni ñoom Fadam de dégg nañ ko ak kàddu yi nga xam ne tam Malick Thiandoum mu yëkkati na ko wax ni daal rafetlu wuñu kàddu yooyu nga xam ne moo tukkee ci biram si Fadam de moom Fadam de leen laa koy wax Fadam de Fadam de musul am victoire ba mu dalee ba bëri musul de géej waale xam naa ko nu mu tudd Abrahima la tudd soudeur la woon musul am victoire dama ko doon seetaan bopp musul am victoire forom dañ koy fay muy wax nu nëpp na teel làmmiñam koo xam ne balaa nga wax nañu yëkkati di la fay teel sa làmmiñ amul droit wax ndax amul réew ni muy doxee quoi jàngul waaw. toog muy dox boobu sax daanaka ñu si bëre dañ cee mer loo ci xalaat. toog muy dox daa yomb président Ousmane Sonko dama dama koy lancer appel mu gën a ndaw yi jàppale jeunesse bi ngi ni ambulant jël ambulant ambulant naa ni saa mun xëyee ñoo ngi nii di muy dox na fi jógee loolu moo tardé Sénégal ñu ñoo ngi nii chaque jour dañuy xëy six heures matin laay xëy asalaatu xayri mina nawm laay xëy di ñëw fii di wut lu di yóbbu sama njaboot toog muy dox baaxul li gën suñu borom da ko su suñu maanaam suñu borom da ko tegal suñu borom da ko teral goo xam ne ni suñu borom da ko toogal daal lépp day kii suñ suñ yonent bi na ko nii man damay dem liggéey daal maanaam toog muy dox daal maanaam toog muy dox baaxul daal exemple toog muy dox baaxul war na yàlla war na yàlla. merci merci waaw. mu ngoog sëñ bi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga présenté wu wax tamit sa xalaat ci li nga xam ne mooy kàddu yu Birame Souleye yi nga xam ne tax na mbër yu bëre mer ay ñoom Fadam de jàpp ne daal du kàddu yu mu war a yëkkati ana ban gis-gis nga ci. ah di sant yàlla bu baax ah di la nuyu di nu Sénégal di nuyu ñëpp a ah, man loolu ma ci loolu ma ko lu ma ko déggee daal a ah, man daal fu mu toll bi Birame Souleye Diop laa àndal quoi. parce que làmb dafa nekk loo xam ne ñun jeunesse bi gis ñu suñu bopp parce que boo xoolee promoteur bi ñoo ci gis boppam ak làmbër yi te mbër yi ñoom daanaka seen intérêt rek la ñu xam kon am na ci droit wax loolu parce que fu mu toll nii Sénégal fu mu toll nii moom. gis na ne làmb amul leen loo xam ne da koy avancer al Sénégal parce que ñun tal nañ leneen am na yu fi nekk yi gën a nekk priorité kon ci yooyu la ñu war a vee dox ci. ànd nga ak moom. waaw moom waaw ànd na ak toog muy dox bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy wax naan toog muy dox jeex na tax nit ñu bëri gis ci seen bopp. waaw dëgg la senegal dafa yàqu depuis sunu maam njëkk Sénégal dafa yàqu. yomb yooyu toog ay sàmbambayaan Mbayaan ay yow maanaam yaa ma neex daal moo fi nekk waaw koo xam ne dañ lay fal poste boo xam ne ah dañ la fa teg pour nga liggéey waaye da nga koy da nga fay toog pour yaakaar ne yow sa ndeyoo ko liggéey wala yow géwél yi tagg la xam nga di la wax yoo xam ne gaan mooy loolu te sénégalais dafa bëri fuy met senegal daa bëri fu metti boo génnee di nga xam ne Dakar kase du Sénégal xam nga Dakar kese du Sénégal boo demee si région yi sous région yi nga xam ne dakaar kese du Sénégal ah am na kër yoo xam ne pour ñu lekk sax toog journée am ñu luñ lekk sax problème la ah bu ñu feebaree duñ faju ndox amuñu ko ah ndox boo xam ne Sénégal fii lay jugee tubaab yi duñu ko jaayaat mais loolu yëpp war nañ ci mën a xoolaat Sénégal daal fu mu toll nii war nañoo jël ay làmbag ay sport yooyu yëpp tegagum ko fële jéem a xool dëkk bi nan lay avancé loolu daal moo gën a nekk priorité ma yi ñuy wax man daal bu lay Birame Souleye Diop lu mu wax moom wax dëgg yàlla ànd naa si waaw man moom sama gis-gis moom comme ni ko Birame Souleye waxee rek moom instant yii làmb ji moom sawaay moom instant yii ko war a arrêté quoi doxalul doxalul doxalul réew mi quoi amul amul benn sens boo xeente ci Sénégal boo xeente ni dimbale na seen yi parce que mbëri yi ciy gagné seen xaalis sax ñoom defuñu ci benn benn defuñu ci société ubbi um, defuñu ci benn loo xëy mën naa investir pour ndaw ji gis seen bopp te et puis ñoom bu ñu amee làmb dañuy woo mbooloo mi xam nga ñoom lu ne ci am daal ñu sonal nu sonal nit ñi te ñoom après ñoom seen xaalis buñ buñ gañee seen xaalis ñoom fu ñu ko xam mais après ñoom buñ amaatee combat rek nga leen gis ñu génn ci télé ku nekk naan maa ngi war say di sonal nit ñi kër te bàyyi nit ñi seen i liggéey xam nga nit ñi duñ liggéey duñ bàyyi xam nga loolu tamit doxalu am réew quoi te isaan yi ñun Ousmane Sonko la ñuy waxal waaw parce que système bi moom la ñuy waxal quoi lépp loo xëyante ni ah doxalu Isaan dañoo bëgg mu jëlee ko fi mu génne fi carrément ñun seen yi ah ñun Isaan dañoo soxla dañoo bëgg xaalis toog muy dox gi depuis ña fi nekkoon ba léegi ñi am ñu doon am ba léegi ñooy am waaye ñàkk di ñàkk loolu leen fi bëgg a jëlee Ousmane Sonko loolu moom rek moo ci mën a jàpp mu saasi mu saasi système bi carrément indiwaat koom-koomu réew mi ñun ndaw ñu mën a gis suñu bopp ci réew mi ñu mën a toog ci réew mi liggéey sinon bu ko defut xam nga li fi amoon barki dem moo fi amaat rek gars yi commencé jël gaaleeg yooyu noonu te ñun loolu instant bi pour mu dakk ci Ousmane Sonko lañ ko yaakaar si ay comprendre kon wàllum mbër ay lamb ay wàllum sport yi nii bu fekkee ne mën naa ñàkk bu fekkee ne bu mënee ñàkk ba nga xëyante ni dina baax ñun bëgg nañ loolu ñun soxla nañ ko parce que ñun ku ñu dimbale leen bëgg parce que ñun vingt ans ngeen ñuy liggéey mënunoo mënunoo yor fii Sénégal ñi fi dàq liggéey nangoo liggéey ñoo fi gën a loolu war nañ ko sàmm te toog muy dox gi moom dañ ko war a xoolaat c'est comprendre toog muy dox gi non ko war a xoolaat parce que ñi fi dàq liggéey ñoo fi dox ñoo fi gën a pauvre parce que am réew bu bëree ay seen ñu nangoo liggéey ah te mënonoo am xaalis loolu nañ ko xoolaat loolu sa loolu du yoon ñu xoolal six heures du matin ñu ngi ci ba jee fii fi la ñuy jullee jee fajar fi la ñuy fekk mënunoo yor mënunoo am ay kër yu baax mënunoo am soxna ah mënunoo takk jabar mënunoo tabax mënunoo def dara dund gu seer na wàññi bagage yi xam nga dimbalu na ci euh, ci ci liggéey bi walla marché yi nag emballement yi nañu jàppale na jàppale emballement yi ak cag-cag yi maanaam ñu daal instant yi ñu koy nekk mooy ñun Ousmane Sonko ñun ndaw ñi instant yi moom lañ yaakaar instant yi moom esegee moom mooy moom Sénégal eseg na parce que ñun mën a taxale woon ci terrain bi waaw ñu doon xeex ba ak si kon tey ji loo xamante ni war naa defar cee taxaw bu baax a baax a baax loo xamante ni nekkul économie réew mu jëm ko fee jëlee ñu fexe ñëw na ñu mën a toog ci réew mi liggéey waaw parce que ñun soxla nañ ko trop te instant bi xam nga mooy loolu galère bu yàgg na sonn nañ trop te toog muy dox gi dañ ko fee war a jëlee carrément waaw mbëri moom duñ fi tus mbëri moom duñ naara moom mbëri moom waaw yaa ma gën xam daal. dolli ziar bu baax a baax Adja. il nag ci ay lamb ak yooyu moom mooy loolu ko lamb yi nag noo war a bay gars yi moo loolu de waaw ministre bi moom amul lenn nuy wax ak moom lamb nag mooy loolu yàgg na fi moom kenn mënu ko fay jëlee. kenn mënu fee jëlal làmb man nag li may wax moom moom ay mbirum ram sax waaw mbirum càq-càq la quoi ñun policiers yi dañoo sonal ci tali bi quoi. aju moom bu jot bàyyi policiers yi bàyyi boog national fii bàyyi la lekk aw 12000 francs wala aw 6000 loolu dafa miti quoi du dégg du yoon. lan ngeen di xaar ci nguur gu bees gi nga xam ne moom lañ fi teg. ah nguur gu bees gi moom li ñu ciy xaar moom mooy policiers yi rek ñu lijanti ñu policiers yi rek moom policiers yi ñoo sonal quoi am na loo xamante ni du yoon quoi. loolu lay jàpp bàyyi bëgg a lekk saw 6000 francs wala 12000 ajuma bu jot ñu lay jàpp police foo jaar ajuma doo mën a doo mën a dawal sa moto sax ndax policier yi loolu di yoon doonu cee war a wax quoi waaw ragal feete nag day xañe war sag te ñun nag policier yi nu xaañ suñu war sag quoi lu ñu war a wax dines ko wax foo gen ñu jàpp la loolu di yoon instant bi foo gen moom la gars yi yëpp di kaas loolu nag du yoon dafa war a dàkk waaw loolu rek la ñuy laasi nguur gi quoi mu jàppale si ñun borom càq-càq yi sonn nañu mu ngoog euh, mbokk yi loolu lañ leen indiloon fi nga xam ne moo di ci Petersen dégg ngeen kàddu yi nga xam ne askan wi yëkkati nañ ko jëm ci euh, kàddu yi Birame Souleye Diop yooyu ñenn ñi jàpp ne lu war a am la ndax kat réew mi dañu war a euh, fexe ba rupture bi ñu woote mu mën a am kon d'accord nañu ci kàddu yi ñeneen ñi wax ne daal d'accorduñ ci ndax loolu itam ci suñu culture la bokk ñoom ndaw ñi itam daal di ci porox ndoolu lancé appel gouvernement bu jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko wax ne daal nañ leen jàppale ndax ñoom ndaw ñi sonn nañu te dañoo bëgg a xëy kon nag li nga xam ne moo di li ñu bëgg nañu fexe ba gouvernement bi jàppale leen mu di message bi nga xam ne lancé nañ ko loolee lañ leen indiloon tey ci 313 digital di leen jaajëfal bu baax suñu ay mbokku internet di leen wax ne nag dee leen abonné aimé like li nga xamante ni moo di page bi ndaxte seen euh, like yooyu mooy suñu doole mooy suñu force di leen jaajëfal bu baax a baax